auzu billahi min asheytaan arrajim la hawla wala quwata illa billah alil azim bismillahi rahmani rahim asbuna allahu wa nimal wakilu nimal mawla wa nimal nasir asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuho yéen bokk yi nii seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay manti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gën a sell <clears throat> tey ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu may nu nu yendu ci jàmm te fanaane ko di ziar suñu kilifay diine yépp nag di leen ñaanal seen doonoon li yal na leen ko yàlla tëyal ba dara du ci yàqu di ñaanal kilifay aada yi di ci jiital ki yàlla teg ci boppi réew mi muy son excellence le président Macky Sall ba ci ki gën a suufee kenn ku ci nekk lépp luñ la jox ngir defar réew mi yàlla na ci yàlla jàpp yow ngi ko joxit nga jàpp ci waggar ko ba lépp sotti Sénégal jëm ca kanam Eh, di ñaanal ñi feebar yàlla na ñu wér ak jàmm ñi jumoon dem kaso it ñu ngi leen di ñaanal bu ñu fa jógee yàlla bu ñu defati lu leen fay delloo di ñaanal bu baax it sunu bokki sénégalais yi nga xam ne foo dem ci àdduna bi tabar fa kàlla fekk leen fa te jom ak teraanga tax leen jóg yàlla leen yàlla sàmm te musal leen te ngeen daje xéewal yu yaatu ba ñibbisi di sant yàlla bu baax moom mi nu may ñu dellu si dellu santaat ko bu baaxit li mu ñu def ñu doon doomu réew bu tedd bii di Sénégal Ah, daba nag xam nga am na invité xam naa mi ngi ci yoon bi léegi mu egsi di Pape Faye ambassadeur de la paix eh, di nit koo xam ne sénégalais yépp defe naa ni xam nañu ko ci liggéeyam ci culture ci liggéeyam ci jàmm muy Sénégal ndax eh, ambassadeur de la paix eh, kenn du ko nommé ku bëggul jàmm moom nag lan am gan moom dañ koy xaar incha allahu bu ko defee bu ñëwee nu waxtaanee réew mi ak jàmmi réew mi ndax jàmm ca la lépp xaj ndax lu waay di def rek tal ko dafa fekk nga am jàmm ba noppi jàmm mooy li mënta ñàkk moo tax yàlla na ko yàlla suuxat Sénégal yàlla ma mën yàlla defal ñëpp jàmm même ñu bëggul jàmm sax yàlla na leen yàlla defal jàmm parce que jàmm rek a neex waaw léeg-léeg nga gis ay image ci ay réew euh, defe naa ni tey jii ku demoon Russie wala nga dem Ukraine boo leen laajee lu ngeen gën a bëgg duñu la wax lu ñu lekk dañ lay wax jàmm la paix parce que léeg ñu won la ay bâtiment ñu dóor fa ay bomb rey nit ña fa newoon yàq seeni kër nga xam ni lee di nga toog ab ab ay téeméeri at ci kanam soog koo mën a defar yaakaar naa ni ñooñu tey jii bu nu amoon jàmm dinañ ko téye moo tax léeg-léeg nga gis ñoo xay dañuy mel ni dañ naan jàmm ji set set Sénégal am dafa ëpp nañ ko wàññi te jàmm du doy jàmm du doy xam naa nag Grégoire bu ma mënoon a tegal sama daara ji famille bu ko defee ñu déglu ko en suñu invité dugg si ñu ñu démarrer waxtaan wi da Grégoire defe naa moo nekk régi Daba waaw bu nu mënee tegal daara ji famille rek bu ko defee ñu ñu xaar invité bi ñëw ñu def ak moom waxtaan ci jàmm eh, jàmmi réew mi ndax eh, Sénégal dafa soxla jàmm. Euh, Sénégal dafa soxla jàmm te nim ko soxlaa noonu noonu la ko waa réew réew yépp soxlaa ndax euh, dëgg-dëgg ku gis image yiy daw ci réew yi amul jàmm fu demee ni Soudan la fa xew jamono ji nit ña génn ren réew ma dem nañu seen yoon yaakaar naa ni loolu day loo xamante ni eh, lu lu ama am solo la jàmm yàlla na nu ko yàlla defal Euh, jàmm ju mat sëkk bi jaahi saydil wujud sallallahu taala alayhi ok defe naa ni léegi suñu invité yëgsi nag bu ko defee ñu dugg ci waxtaan wi euh, parce que ambassadeur de la paix yooyu xam ngeen ni def nañu waxtaan temps yële ca Thiès euh, colonel Momar Gueye ci la bokk ah, ak doyen doyen bu baax boobu nga xam ne lépp luy lu baax ci senegal euh, boo demee fekk ko ca euh, nitu jàmm la nit koo xam ni ku bëgg jàmm la te jàmm moom mooy li neex euh, Grégoire xam naa dafa jàppandiwul daara ji famille ah Alain waaw Alain kon nga tegal ma daara ji famille rek woy neex woowu ñaan dafa mel ni dañu bàyyi sunu yoon bëgg askanoo lu ñu moomutoon Ah, te loolu li gën a yàq doomu aadama loolu ci la bokk ndax saa yoo wàccee sab ànd ànd boo dem fekk boroom toog ca te yaakaar naa ni sab ànd ci nga war a toog ku ñëw fekk la nga ni ca rëj ndax moo la jig waaw àndub jàmbur wóorut lépp lu dugg luñ naan jàmbur rek wóorut waaw ah, ndax wolof yi dañu ni eh, eh, du man dong bokkuma caa ca du man dong bokkuma ca moo gën a wóor waaw du man dong moom bu ma la doon enquête mbéj laa cay teg rek <laughs> ndax xam naa ne yow moom abu nga ni tu coupable waaw kay kon yal na yàlla suuxat jàmm senegal Alain boo ñu mënee tegal daara ji that I never suicidal. Every day is trying to trick me into doing battle. Holding on faker only gets me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cattle. Digging your trenches, building your answers. Put me on the front line, hit me with the dump line with no defenses. What's your defenses? If you can't stand and feel the pain of your senseless senses, I've grown up some different kind of fighter. When the darkness comes, let it inside you. Your darkness. is shining. My darkness is shining. Have faith in myself. True. So eh, I've seen the Pape Faye ambassadeur de la paix defe naa ni Pape Faye Sénégal du ma ni kenn ñëpp a ko xam waaye li ëpp ci sénégalais yi xam nañ ko eh, dama koy jox mu nuyoo rek bala ñoo dugg ci waxtaan wi kon Pape bismillah Euh, merci beaucoup euh, El Hadj maa ngi nuyu di la remercier itam ci invitation bi nga ma defal mm-hmm. ngir ñu mën a wax sunu xalaat ci li am ci réew mi mm-hmm. fan yi paase te kenn rafetlu wu ko ñun sunu xalaat rek la ñu am féjale ko nag fu baax di duy itam euh, borom kër gi di El Hadj di sama xarit ak Mariam Abdou sama doom itam yu nuyu ñëpp véritablement di nuyu waa Sénégal di nuyu itam kilifa diine yi euh, di nuyu njiiti réew mi parce que après tout c'est lui c'est lui waaw mooy njiiti réew mi moo tax euh, balaa ñoo def lenn tàggu ko rek koy tàggu te du si gis benn conséquence waaw ah loolu yi laa amoon ci rek kay kàddu yu néew sama pour nuyoo léegi ma delloo naa la ko léegi waaw aussi euh, tey la sa way juru jigéen aussi am 40 jours waaw ñu war koo defal ñaan. Ah, merci beaucoup xam naa li nga nekk ambassadeur de la paix sax moo tax nga ñëw. Mhm. parce que boo jógee fii directement foofa nga jëm. voilà gërëm koo ñaanal. Mhm. ñu ne tim ñoo ngi koy ñaanal ci turu Alaaji Ndiaye ak ci turu Mariam. ak turu turu Abdoul yal na yàlla woyofal suuf ci kawam. amiin amiin léegi nag euh, li may njëkk laaj rek mooy euh, euh, lu tax Sénégal xëy xëy mel nii noo ko gisee. euh, y a un déficit un déficit au niveau basique au niveau de l'éducation de base dafa am solo xam nga xel dañ ciy jëmbat jàmm dafa am boo duggee dans la constitution de l'UNESCO dañu ne puisque c'est dans l'esprit des hommes que naît la guerre Donc c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut semer les graines de la paix. De la paix, effectivement. Euh, ci xelu nit ñi la xare di juddoo parce que xare violence esprit la bu nekk ci ñun. mais mën nañ ko dompter. Mm-hmm. mën nañ ko dompter ba mu nërmeelu. ba mu nërmeelu mais su fekkente ni amuloo arme yu koy dompter ba mu nërmeelu. Mm-hmm. day poser problème xam nga mm-hmm. arme yooyu mooy lan. mooy lan. ca base ba la parce que xaleel buy màgg danga koy wan yoonu jàmm jëmbat ko ci moom voilà jëmbat ko ci moom mu sax ci moom su ko defee jamono day ñëw fu mu waroon a agir avec violence mën na ci dem avec une, une certaine diplomatie parce que wax la rek mm-hmm. xel du dara lu dul wax mm-hmm. c'est une genre genre introspection boo def sa bopp la. nga xalaatal sa bopp. Abdou Diouf dafa na et cette phrase là dama ko retenir El Hadj et c'est simple c'est pas compliqué on y a deux choix à faire dans la vie le mal et le bien c'est tout simplement ça le mal et le bien et, quand il faut choisir mu ne moi je choisis le bien xam nga tax mu wax quand il y avait l'entrisme xam yaa ngi fàttali ko loolu. waaw mooy gouvernement li euh, euh, euh, euh, euh bon la le parti libéral Ablaye Wade. ñu naan day duggam du dugg ci gouvernement bi. am ñu ni du duggu dégg nga. au niveau jamonoy gouvernement El waaw c'est ça. Mm-hmm. mu ngi noonu juuf Abdou Diouf. Mm-hmm. bon ñu ne lu tax. nga bëgg nga nga dugal kii bi Wade dugg na au pare de ak ses ministres. <laughs> waaw y avait les Idrissa Seck à l'époque y avait <laughs> Ousmane Ngom je me souviens. oui oui. y avait Aminata Tall. Ah, am ñu ko xawoon a mere. Mhm. ñu ko lu tax mu def mhm. ne fa la jàmm ji ëppee. Mhm. quand il faut choisir entre le bien e le mal. on choisit le bien. tu choisis le bien. oui et puis ñoom bu ñu duggee toog. ja jàmm ñooy. jàmm na ñooy. oui. donc moi je retiens cette formule là. Absolument. depuis lors. Mm-hmm. Euh, ci loolu lay wéy di jàngal xale yi ne leen. Mm-hmm. quand vous avez à choisir entre le bien et le mal. choisissez, toujours le bien. Oui. parce que le bien. Mm-hmm. mooy defar sa yoon. mooy defar sa jikko. mooy defar sa avenir. mooy créer le relationnel entre yow ak mbooloo mi ak public bi. le bien moom ngay sol di mbubu di ko naan muy sa ndox muy sa lekk loo ñaan sunu borom bi ci lu baax mu indi la ko dëgg la maa la wax nii parce que yàlla amul sax lu bon mais amu ko lu baax rek la am te beneen bi mooy njàngat li itam kii sème le mal récolte le mal ça c'est clair kii sème le bien récolte le bien. le bien absolument mais kooku du man maa ko wax boo demee ci alxuraan da nga ko fay fekk. ma nga fa ma nga fa. may déglu toujours ces émission kontaan ci lool. je me dis voilà un constructeur. et là Ngol Ngol il est là pour construire. yaa ngi échaf teg échafaudage. yëpp fu mu jëm jàmmoor ci réew mi. parce que réew si amul jàmm day. ah man de macha allah la preuve mooy que ni. réew yi nga xamante ni ñoo fi ne euh, euh, imagine je donne un exemple très concret. le président Macky Sall dafa ànd ak euh, y a y mission de de de paix bu dem fële. de des des présidents la là. voilà ñu Ukraine ak. Ukraine Russie ak yu mel noonu. oui oui. mais tant que jàmm la dox dëgg day mm-hmm. pour waxtaan ak njiiti réew yooyee di jàmmarloog ci xare. Mm-hmm. ñu dal parce que conséquence yi guerre di indi ci waxuma sax seen biir. mais ci àdduna bi mais ci àdduna bi. dafa doy waar. ah gis nga ñuy wax waxu blé ak engrais bi. voilà c'est ça. oui mi ngi noonu. mu ngi noonu moo tax demee nii. il n'est jamais trop tard. mais man li ma xaw a euh, jaaxal. Hmm. mooy dañu xëy xëy xëy xale yi violent de trop. ba léeg-léeg ñuy def loo xam ne da da nga naan est-ce que lii nit ñeme na ko def par exemple bu may xoolee image yi am université. oui ak des gens qui tentaient de de brûler la centrale électrique. ak d'autres qui voulaient vraiment casser usine ndox bi nga xam ni loolu est-ce que nit bu dëkk Sénégal ak yow ni nga xamee Sénégal di yëngu ci culture mas nga gént ni ab Sénégalais dina yegg si fii. mosuma ko gént ma jox la beneen beneen beneen euh, exemple. dafa benn waay boo xamante ne bii sama xarit la. moom mag nag. foofu waaye dañoo xaritoo. il a fait partie des meneurs de la grève de 1968. bu reconnaître jëf yooyu ñu doon def ñu ñaaw di yàq di takk di di di taal lu na def ko waaw ñu téye woon ko fii nag denc ko denc bu yàgg bi mu libéré biñ ko bi ko biñ ko mais liberté provisoire mu toog toog ne mais man est-ce que man maa def lii. lui-même il se posait des questions il se posait des questions est-ce que man maa def lii. dans sa conscience sa conscience lui répond. ah oui oui. yaa ko def. il y avait un diable en toi. waaw ah un diable en soi. on le combat on le détruit. soo bëggee nekk nit. dëgg la waaw il a regretté ce qui s'est passé et depuis lors. Mm-hmm. il n'a cessé d'enseigner à ses enfants. Mm-hmm. de cultiver la paix. comment cultiver la paix. oui oui xam nga El Hadj mhm. yàlla damay sant sunu borom bi bu baax a baax xam nga lu tax. Mhm. moi j'ai après mes études mes humanités mhm. dama dem ci benn l'école boo xamante ni c'est une école privée catholique j'ai fait vingt cinq ans de carrière dans cet établissement-là je me gêne pas de lu citer mooy cours Sainte-Marie de Anne waaw El Hadj Ndiaye dafa daan ñëw souvent euh, je me souviens il venait me prendre mhm. bu ñu daan dem tourner Clibo jëkk yooyu ak mhm. ndeysaan mhm. Euh, Omar Pène clip clip boobu Africa Africa xawma alors man ñu dénkoon ma fa benn responsabilité xam nga lan woon sama responsabilité mooy ban naka laay mën a defee la promotion de la culture du, du pays où je suis né qu'est le Sénégal et des autres pays des autres nations yi nga xamante ñoo ñoo nekk ca l'école boobu parce que on n'était pas moins de quarante euh, euh, euh, ou cinquante nationalités différentes mmh. beaucoup de pays beaucoup de pays alors mun a def promotion culture bi bàyyi bi ci des mhm. donc j'étais un un personnage transversal alors ñu ne nag comme c'est une communauté de plusieurs nationalités war am xaajeeg seen ñëpp war a yem ne ma nag fexeel ba ngay créer activité yoo xamante ni yi dana mën a permettre un brassage des nations un défilé des nations un défilé sur un tapis de la paix ñu créé woon nag la ñuy wax ay semaines de la paix chaque année on avait deux semaines ou trois semaines yoo xam ne c'était essentiellement axé sur la paix ñu koy exprimer à travers des expressions comme le chant, comme la danse, comme la musique, comme la poésie, comme le théâtre, la littérature pour dire. di ci professeurs yi seen bopp di encourager élèves yi dans les salles de classe ñuy def ay dissertations sur la paix sur, sur la, la non-violence mm-hmm. sur la démocratie et la citoyenneté. moom ñu ngi jëmbat loolu yëpp man man euh, bon sama service la nekkoon quoi en fait. Mm-hmm. sama service la woon alors si bien que boo duggee ci l'école bi. Il y avait partout des drapeaux. Toutes les nations qui étaient représentées au, au sein de l'école là. Il y avait euh, euh, ku nekk amoon na fa sa la cour de la paix. Euh, jékki-jékki ñu daan am ay ay soirée et journée d'intégration. intégration maanaam xale yi nu ñu duggante. am woon xaaj ak seen. tout le monde était ensemble doo mën a xam ne kii sénégalais la kii français le kii chinois la. kii euh, euh, belge la yu mel noonu kii mauritanien la wala suisse tous ensemble donc loolu moom suñu rôle aujourd'hui loolu moom suñu rôle. moo tax xale yi fa génne. mais exactement xale yi fa génne. du ñu du ñu mun a violent. exactement te loolu dañ ko daan appliqué dañ ko daan appliqué bi jusque dans la petite enfance. oui ba ci jardin d' enfant. waaw xale yi ñoo def spectacle de fin d' année et c' était axé que sur ça benn jour maa ngi ko doon expliqué temps yii la passé. Federico, Federico Mayor, à l'époque, qui était le secrétaire général de l'UNESCO, mm -hmm. qui avait été invité par Abdou Diouf, mu débarqué parce que déggoon na ñuy wax l'option philosophique et de non-violence bu école boobule mu descendre fa un dimanche ñu wooma sama directeur à l'époque yal na ko sunu borom bi xaari àjjana mooy Kabrita Mm-hmm. na ma ah il faut nga ñëw de parce que Federico Mayor dafay ñëw avec une délégation visiter le cours Sainte-Marie mais bi mu duggee ci biir l'école bi ñuy visiter di visiter di visiter bu ñu yegg ci benn euh, ronde benn benn benn espace la on appelle les colonnes de la poésie ay mm-hmm. poète rek ñoo fa awoon seen seen kii ñu dund ñi ñu dee ñi ak ñu mel noonu ak yoo xamante ni c'était des philosophes et partout sur les murs et image philosophe et image homme de paix et, et prix Nobel partout partout et prix Nobel partout rien que mu ne attends j'ai jamais vu ça au monde wax le secrétaire général wow. de l'UNESCO mu ne ce que dans cet établissement il l'a jamais vu de surcroît mm -hmm. qui est un établissement euh, sénégalais africain j'ai fait tous les pays d'Europe mais gisuma lii maa ngi koy doog a gis fii ci Sénégal mu ne ñu nag te loolu amul fenn ah. amul fenn. Mhm. mu ne ñëw. Euh, kenn mooy le responsable kii mais xam nga boo dee suq bul feeñ sa kanamu patron. <laughs> comme suq nga yow. da koy da nga koy relever. absolument su waxee ñu ne que non toutes les idées viennent de ce grand monsieur là qui est Victor Emmanuel Kabita ñun dañuy appliquer rek on applique. Mhm. on est là que pour exécuter mais toutes les grandes idées. ça vient de, de... ça lui mi ngi nii. mu kontaan nag. Mhm. waaw bien que yu bëri ñoo ko daan imaginer di ko ko jox mu ci muy validé nga màggale ko rek exactement mhm. Frédéric Courmayeur mu ni mais vous il y a un grand concours international qui va se passer comme chaque année au niveau de au sein de l'UNESCO à travers pays yi nga xam ne c'est le membre de l'UNESCO mhm. dañuy postuler ci concours boobule mais yéen mu ngeen a participer ñu ne ko lan la mu ne concours la pour euh, euh sur la paix est la compréhension internationale. te yéen loolu ci ngeen nekk sax c'est la ñu nekk ñu postulé bi ñu postulé teg même pas un mois le jury a voté haut la main au cours sen remporte le prix UNESCO d'éducation la paix le prix international ba léegi boo demee foofu. Mhm. prix bi bu ndaw ki la woon quoi genre euh, euh, euh, trophée bu ndaw la on lui a donné une réplique boo xam ne boobu dafa mag quoi c'est grand. on l'a mis on l'a on l'a on l'a implanté à l'entrée de l'église de la chapelle. Euh, ndeysaan mu nekk victoire bu rëy. on est parti à l'UNESCO une bonne délégation. ñu ne pour ñu jël prix bi foofu quoi. man nag bon euh, école bi ñu ne yow comme yow daanaka presque activité yëpp parce que dossier yi. sama service la woon ak yi patron bi gardé yooyu la ñu boole ak témoignage yi ñu yóbbu on a postulé on a gagné ñu ne man ak yow moom non seulement da ngay am voyage gratuit aller retour on te met également un per diem tous les autres ils ont payé <laughs> leur billet d'avion donc cela veut dire que <laughs> dafa am solo te li ma ci gën a neexati aujourd'hui euh, ñooñu nga xamante ni ay élèves la ñu woon jamono yooyee ba tey ni ko waxee sànq affaire boobu dafa def seen xel. non oh, du ci jóg doo dégg mukk ñu dugg ci yenn koo xamante ni kii. jaar na ca l'école boobale. di di def yenn di def yeneen yu dul noonu ko oh, mais est-ce que parce que Pape yow xam naa ni. sengoor peut yaa ngi fi woon mais tout tànk nga peut-être. oui Abdou Diouf euh, reñam fi la la fekk. Mhm. ak digganteem ak président Wade ak tout ça. Uh-huh. ba tey jii président Macky Sall nekk fi. Mhm. mais yow est-ce que politique bii ngay gis léegi. waaw ak bi nga xamoon wutewul loola. Euh, xam nga ku nekk ak sa personnalité. Mhm. Senghor tout le monde sait que c'était un homme de lettres. de lettres oui. et c'est et c'est dans c'est dans l'esprit de Senghor qu'est née la notion de l'univers euh, de de de de civilisation de l'universel. Mhm. waaw c'est-à-dire ñëpp nañu bokk. Mhm. am benn gis-gis. adduna bi yëpp et d'ailleurs c'est ce qui se reflète aujourd'hui parce que aujourd'hui il a plus de frontières entre les nations Absolument. il a plus de frontières entre euh, les mondes parce que tout simplement à cause de cette euh, grâce à cette notion d'universalisme et c'est Senghor qui a théorisé ça Absolument. il faudra qu'on le lui reconnaisse malheureusement quand on est africain pour la plupart du temps boo defee ay jëloor yu mel noonu de euh, bu fekkee ne amul ay intellectuels yu nekk ci gannaaw pour Euh, dundal li li nga waxoon dañ naan non c'est or cette notion d'universalisme ça c'est Senghor il a théorisé c'est Senghor donc c'est important et Senghor c'est quelqu'un qui a toujours prôné la paix et d'ailleurs dans son œuvre poétique un poème qu'il a écrit sur la paix hein Dieu pardonne Dieu pardonne Dieu pardonne paix à un excellent poème alors moom euh, c'était quelqu'un d'extrêmement sage Senghor moi je, le connais parce que bi may jàng Popenguine bi may jàng Popenguine ma man Popenguine laa defee sama étude primaire uh ah -huh. Ah. mais première euh, classe c'est à Popenguine uh -huh. dafa naan romb noonu ànd ak madame Colette Senghor di doxantu ci devant la devant l'établissement Et à l'époque il était président il, il il y a une résidence présidentielle. oui oui oui. foofu la daan nekk tout le week-end Adoune Ndiaye Coumba Rose mu ngoog foofu la daan nekk. alors ce qui fait que chaque année mois de décembre mu ñëw indil ñu ay cadeaux yu bare bare bare ñu jëli ko palais. petit palais bi nekk fële. waaw waaw waaw moi j'ai moi j'ai reçu plusieurs fois des mails de Senghor et de Colette des cadeaux. oui kooku du ma ko fàtte jamais de la vie. Mm, mm, mm. d'ailleurs je pense que Senghor m'a beaucoup inspiré. Euh, relationnel boobu ñu amoon. une relation nombriliste laay wax parce que dama dama roote ci moom lu bari. voilà donc loolu la alors il était de de de de d'extrêmement posé c'est vrai que le seul truc mooy la grève de 68. nga xamante ne bon les gens ñu bari neenuñu par rapport à certaines personnes qui étaient qui étaient décédées qui étaient mises en prison qui étaient mises en prison. c'était sous Senghor. C'est vrai qu'il avait beaucoup de gens qui étaient contre lui mmh. et qui sont aujourd'hui encore vivants aujourd'hui hein, oui, oui. mais qui ont reconnu, qui reconnaissaient justement l'humanisme senghorien. Oui. Absolument. Mmh. <laughs> Voilà. Euh, Abdou Diouf mmh. bon fréquenté wu ma ko lu bari wax dëgg. Mhm. lu dul quand euh, j'avais l'occasion justement di def ay maîtrise de cérémonie. mu koy présider soit à Sorano wala faneen ñu pare il vient me féliciter merci jeune homme <laughs> ça oui. ça c'est Abdou Diouf oui, mais avec un calme olympien une sérénité d'une extrême rareté de Senghor <laughs> oui bi lay calme calme ça c'était euh, Abdou Diouf mosul balaan kaa xam mooy bi fii euh, Euh, euh, euh, conflit boobu amee entre notre pays ak la Mauritanie mm-hmm. xam nga lu mu wax mm-hmm. cette fameuse phrase ey bu ñu geeroon je sais que yaa ngi fàttaliku loolu oui oui je me rappelle très bien ey bu ñu geeroon ey bu ñu geeroon ey bu ñu geeroon wallaahi cela veut dire que buggul woon dara ci ay ay ay ci dara waxu ci dara ça c'était ça c'était ce qu'il caractérisait xam nga lan la mm. le sens du pardon vrai oui Wade day jékki-jékki tàng moi j'en sais quelque mm-hmm. day daal di sedd <laughs> oui j'en j'en quelque chose parce que moi j'étais proche de lui mm-hmm. parce que dafa ma confié l'hymne de la renaissance africaine waaw dafa ma ko confié woon amoon mm-hmm. na chance daan voyage ak avec l'hymne de la renaissance africaine euh, il m'appelait directement. Mm -hmm. directement. Mm-hmm. Pape nekk ma ne ko maa ngi place sànq mu ne bon jaar fi dama la soxla. mu ñëw mu ne ma événement tel chef de tatel ak chef d'état tel dañu war a ñëw va voir avec Bruno Diatta euh, protocole noonu quoi. donc moi je je je waa je connaissais très bien jéggale njéggale. Mm-hmm. ça c'était Ablaye ak lu mu mënti doon. Ah moo tax damay rejoindre euh, toujours euh, dama koy le pape Jean-Paul II. Mm-hmm. amulu moi mm-hmm. qui offre le pardon reçoit la paix. wax na dëgg. dëgg parce que Jean-Paul II pape Jean-Paul II. li fu ñëwee je crois c'était en mm-hmm. au stade ñu recevoir ko foofule. tout le texte que nous avions construit pour l'accueillir dama bokkoon ci ñu ko bind avec l'église le spectacle qui a été monté au grand au stade Demba c'est moi qui ai monté le spectacle avec ma voix qui résonnait voilà ci Simergif mm -hmm. un peu partout mm -hmm. et c'était des textes essentiellement élaborés sur la paix sur la à, euh, euh, la compréhension internationale sur le dialogue islamo-chrétien c'était ça la base du texte. te Sénégal moom dialogue islamo-chrétien. rek moo ko déggee sax dama naan ñun weesu nañu. mais c'est vrai c'est vrai donc euh, euh, alors Pape Jean-Paul II bi mu ñëwee mais même tous les marabouts ñu waxtaan nañu ak moom s'affronté nañu parce que Sénégal loolu la soxla. loolu la soxla nous sommes tous des parents des amis alors euh, ma ñëw ci daa ma daaneel ci président Macky D'abord, ce qu'il faut saluer, son expertise, la waxante dëgg son génie. parce que boo gisee damay jëkki di doxantu ah dugg sama benn woto wala jël taxi il m'arrive souvent de faire ça et je fais le tour des installations yu mu def ci ci dëkk bi ma ne kenn mosu woon a xalaat lii. non non c'est-à-dire que boo yéene jàmm si réew noonu ngay def. et je sais qu'il s'est donné entre nous il s'est donné entièrement entièrement euh, c'est un bâtisseur. Mm-hmm. et je lui ai dit tout le temps en face quand j'ai l'occasion de prendre le micro devant lui mm-hmm. je le lui concède on le lui concède c'est un bâtisseur mais quelqu'un qui est un bâtisseur qui est en train de yóbbu réew mi foo xamante ni fii macha allah kenn foogeewu ko woon ah. en si peu de temps. en si peu de temps da ngay nangu da nangu. c'est un bâtisseur. maintenant il faut l'aider il faut l'aider parce que nit la nit kese la. absolument. il Mais il faut l'aider. Comment l'aider Quand je dis il faut l'aider, c'est vrai, il y a des gens qui l'aident. Hein? Oui. Il y a des gens qui prennent la parole pour le défendre. Ça, on n'en disconvient pas. Mais comment l'aider Et comment l'aider mmh. C'est ça. Et je sais qu'il y a des gens, Yoramatini, encore tapis dans l'ombre, ils sont en train de mener un dialogue souterrain pour que Yéfi calme. Mmh. Je commencerai par les chefs religieux. Di gërëm itam, machallah, les khalifes généraux qui Yéfi. ñu ngi wax ci jàmm ji ah, pour lépp nërmeelu absolument jàmm ji ay wi nërmeelu mm-hmm. ah safari si nërmeelu nërmeelu nag yëpp nërmeelu mm-hmm. su ko defee jàmm ji taxaw ba faaw taxaw et je je je sais que ne mm-hmm. euh, il est est dans cette dynamique là c'est pas pour rien qu'on a convoqué le national c'est pas pour rien qu'on a convoqué le dialogue national alors ce qu'il faut peut-être euh, euh déplorer et je le déplore le groupe des ambassadeurs de la paix on devrait pouvoir les associer dans ce dialogue là. absolument waaw. dañ ci waroon bokk nag. dañ ci war a bokk. parce que ña fa nekk. waaw kenn ku ci nekk euh, ab sénégalais la bu bëgg Sénégal. dëgg la te xam jàmm tey dox jàmm. oui man suma émission bii lépp jàmm lay. jàmm rek la. kon nag waroon nañ ci bokk mais jàpp naa ni ñun ñoo ngi ciy bokk parce que bis bu ne ñu ñuy dégg. oui te lu ñuy wax xam naa ni peut-être am na ñu nu ko yóbbaaleel ca dialogue ba. et puis xam nga. Mhm. Euh, c'est la bonne heure euh, mhm. euh, ku nekk wax dëgg yàlla am nga foo far. Mhm. mais moi je dis bu desee lu dul wax jàmm. Hmm? mën nañu à mon avis bañ a fësal sunu péete parce que boo ko fësalee rek. yàq wax loo xamante ni lii. après day yàq. et puis sax Sénégal moom moom man. sama leader ak sa leader. ñoom ñëpp Sénégal la leen moo ne ca kaw. mais ak ah, sûr. Sénégal mooy mooy mooy la priorité. mais mais c'est ça. beneen bi mooy. Euh, je voulais venir sur euh, euh, le président Macky Sall. waaw man am nga ceeb wala déet. je peux me tromper mais je crois que c'est ça moi j'ai eu à étudier dafa dal. samba ku dal la way naa ni ku mën a muñ la. quand je dis ku dal la. même bu amee lu ko metti ah il ne l'exprime pas en public. je pense que ku bokk na ci atu yi nga xamante ni. on le lui concède. nag yombul de. exactement ça c'est être un homme leader. je prends le cas de Wade. oui Wade il est tolérant. il a le sens du pardon. mais bu ko il arrive souvent que bu buggee wax mais bu meree exprimé eh! je je je j'en sais quelque chose. mais bon euh, yàlla dogal na. du benn du ñaar yoon du ñetti yoon mais c'est une qualité nag. mer wax ko toog nañu ak i nit. oui oui. waaw mais day wax la muy wax. voilà wax ko. mais bu ko waxee rek pare ak xadar. mais après. bu paree na la bon. et pourtant il fallait le dire et puis on passe à autre mais man na qualité boobu kiiwuma ko man naqariwuma <laughs> man euh, man fois ma gis koo xam ne bu bu ko dara naqaree rek da koy wax. oui su ko waxee ba mu génn ci moom pare na ci. Mm-hmm. et puis il tout de suite après. il pardon voilà il pardonne yooyu c'est c'est extraordinaire. oui alors donc euh, pour dire que j'ai j'ai que le président mën nañu ko dim gën a dimbali encore cest dire que fu. coalition wala association wala nit amee yéene euh, indi lu baax pour réew mi mooy euh, ci ñu war ko jaarale ci président ñi nga xam ne ñoo ko wër nañu ko jàppale ci loolu parce que le président il n'a pas le temps de tout voir de tout non non non c'est pas possible il faudrait que ceux qui sont aux alentours ko nag yow président diw day wala association day nee na nangam ak nangam nangam ne bu ko mu joxe. tout de mais justement foofu laa bëggoon daaneel sax. les les ambassadeurs de la paix. oui je crois que introduire nañu pour président recevoir leen. oui mais ils ont leur mot à dire. exactement. mën nañ bañ dem ca dialogue ba wax ko mais mën nañ toog ak président joxoñ ko ni ko nii la nii la nii la. parce que dañ ci am ay dañu ci am ay idées leer nañ. mais bien xam nga. Mhm. Euh, dañu war a on forom forum. Mhm. là tu es au courant parce que toi tu es ambassadeur de la paix. oui gannaaw ba ñu jógee. Thiès 23 24. voilà mhm. donc euh, initiative pour la paix 23 24 c'est-à-dire 2023 2024. Mhm. parce que ci rayon boobu la ñu toll nag tey. absolument oui. ci rayon boobu la ñu toll nag. bien sûr waruñu seetaan luy taal réew dëgg dëgg. ba tax na buñ ci yeggee. moo xam ambassadeur de la paix moo xam un professeur d'université nga moo xam en simple euh, ouvrier moo xam euh, mannequin nga moo ak loo bunti doon nangam xalaatu defar Sénégal Sénégal su ko defee on passera peut une journée entière on a ciblé Saly nous avons notre ami euh, Boligué qui nous représente là-bas c'est lui le président de, de, bon, euh, du syndicat d'initiative euh, machin Impact Yaatal mu ngi def tout pour que ñu am benn espace bu mun a réunir dajale mboolee mi on passera toute une journée mhm. à parler que de paix su ko defee ñu def suñu recommandation ne jébbal ko njiiti réew mi ni ko lii lañ bëgg mais mhm. dafa laaj moyen aaw dafa laaj quelquefois dañuy buté ci loolu am na ñoo xam ne seen xaalis dañ jël ils mhm. sont prêts mais quand tu déplaces nit ñoo xam ne jóge bitim réew ak réew région de région. pour ah, dem sali il faut au moins am benn limité il faut des moyens il faut qu'il il faut qu'il mange il faut qu'il se restaure il faut que il faut que bon et puis y a des documents qu'il faut donc loolu moo ñu xaw a euh, bloqué tuuti rek. Mm-hmm. ba tax na ñu doon ci interpeller madame Innocence Ntap Ndiaye. Mm-hmm. parce que amul lenn lu ambassadeur de la paix di amal fii ci réew mi. Mhm. te duñ ko bind bataaxal. wala ñu woo ko téléphone ne nangam la ñu bëgg a def. moom it dëgg dëgg mi ngi def liggéey bu rëy. mi ngi def liggéeyam. Mhm. ñun dañ koy woo ci fànn woowulee. Mhm. mu am lu mu ci jàpp. je pense que war na mën a am benn benn côté boo xamante ni bii prise charge ñuy ah l'idée c'est madame la présidente du dialogue social. moo ko def pour mun a wooye fal déplacement bi. absolument waaw dañ ko ci interpellé de. ak képp koo xamante ni kii wax dëgg yàlla. parce que même y de des y a des chefs religieux et des euh, maîtres daara yoo xamante ni dañu leen impliqué ci affaire boobu. absolument waaw élage daal loolu daal. bëgg naa nga ci revenir très souvent. <laughs> dinaa ci sa émission bi. absolument <laughs> waaw incha allah après tabaski. su passé. Mhm. moom la ñu bëgg a def. incha waaw moom la ñu bëgg a def. yàlla na ko yàlla sottal. amiin amiin eh, waxtaan wi nag eh, yegg si nañ fi. je sais oui ma jox la rek nga tàggoo. waaw kon nag. Euh, waat ñaanal bu baax maire bi aussi yàlla na xeppee àjjana. amiin amiin amiin en ce moment nii euh, xam naa ne jombul waa waa géero yi ñu ngi ñuy seetaan parce que man fa laa juddoo falaa fekk baax sama wéyjur wu jigéen itam comme sama wéyjur wu góor. fa la ñu juddoo fa la ñu fekkee baax yàlla dogal ñoom ñëpp wuyu jëriñu tey seen i borom suñu borom tey di quarantième jour sunu yaay Nafi Njoon ñu ñaan sunu borom bi xaaree ko àjjana en ce moment nit ñaa ngi foofu di def ñaan yeeg sarax seeg yooyu yëpp su ma jegee fere foofa lay jubal directement incha allahu rabbi di la gërëm bu baax a baax a di gërëm Sénégal di leen sant bu baax vraiment euh, làmmeñ nag day fakastalu mm-hmm. il se pourrait que même dans dama communication xëñ na euh, am na ñu ma heurté peut-être sans m'en rendre compte mais bu amee rek maa ngi jégalu ci loolu parce que euh, ku ñu xam-xam ne ñun ci jàmm rek la ñuy dox waaw kon nag El di la gërëm di la sant encore une fois fii nga teg sa loxo foofu la yow réew mi ak jàmm ji moo tax jóg jërëjëf euh, ambassadeur Pape Faye di gërëm aussi bu baax Cheikh Tidiane mbay waaw Cheikh notre ami Cheikh ay di gërëm euh, colonel Momar Gueye moom ak soxnaam ñu nga màkk fi ñu nga màkk ñu nga màkk waaw waaw ak Michael euh, mbay Michael Mbaye Michael Mbaye dem na dem na ku baax a ngi noonu nag Michael Mbaye parce que lépp luy lu baax ci Sénégal rek da nga ko cay séen c'est un grand régulateur. absolument il y a même le président Alioune Badara Beye. Alioune Badara Beye non c'est mon ami Alioune Badara le président des écrivains du <laughs> Sénégal alors euh, aussi. maa ngi xalaat sax ngay doba yàlla na ko yàlla. ndeysaan waaw sunu xarit ngay la léeg-léeg mu ni ma pire laa dëkk. waaw <laughs> xam nga addu Sénégal ñu baax ñëpp bokk. billaay wallaay yal na yàlla dolli jàmm ji. xam naa nag Pape bu ci kanamee sax. Euh, da ngay dellu siwaat. ñuy dellu siwaat parce que am na lu ñu war a waxtaane lu ñu war a waxtaanee. mooy euh, xam nga. l' anniversaire de la mort de Lat Dior. absolument <laughs> keroog yaa nga fa woon maa nga fa woon exactement. <laughs> te loolu lu am solo la incha allah le 27 octobre. voilà mi ngoog 1886. ndeysaan te bientôt octobre. incha allah xam naa nag boobu moom nañ ko préparé. nañ ko préparé ko bu baax a baax incha allah. même bu nu mënoon a indaale sax ay xaaral daal dinaa ci jéem a. incha allah c'est possible parce que El Hadj aussi c'est un homme de culture. ah tu vois. voilà donc loolu defe naa dina mën a yomb. d'ailleurs sax on peut même donner des extraits. oui du film de Lat Dior. absolument parce que on l'a ici. absolument des extraits yoo xam ne que jaarale. waaw euh, ici même on va le faire. waaw parce que nag euh, journée yooyu dafa am solo ndax. résistance dafa bokk ci réew. te Lat Joor euh, vraiment il symbolise. sax bañ ko la noot bañ ko la noot la. waaw bañ nga ci li euh, li kiy wax léegi daara ji. Mm-hmm. voilà. c'est extrêmement important. c'est très xam nga souvent. Mm-hmm. foofu lay tëjee. Mm-hmm. Euh, l'esprit d'acculturation. mène toujours à la violence. mais bien sûr moo ñu li ñu dal nii. muy dal nii parce que da bëgg a nekk ci loo xamante ni du sa aada du sa cosaan. dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon. mais boo tëggee askanoo lu ñu moomutoon. askanoo loo moomul. boo tëggee ci ànd boo moomul mu toj doo ko mën a réparer. jeex na. <laughs> loolu mooy suñu problème aujourd'hui merci Pape merci El Hadj kon nag salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jërë ngeen jëf. jërëjëf